rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mboolem kilifa yu tedd yi bokk daje ci kër gi bokk ci këri Cheikhul Xadim di kërug Sëriñ Tuubaa ci Tuubaa Malika nu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a rafet ci nuyoo yépp di nuyoo jullit ci ay mbokki jullitam di nuyoo taalibib sëriñ Tuubaa ci ay mbokki taalibeem di ci jiital sant yàlla julli ci yanant bi alayhi salaatu wasalaam di ñaanal sëriñ Muhammadul Muntaqa mii sëriñ Tuubaa yàlla na yàlla dolli ko wér dolli ko kàttan bàyyi ko ak sagoom ba mu àggale naal yépp ànd koog mboolem taalibe yi di nuyu daayira xidmatul xadim bu baax jaare ko ci sunu jëwriñ bu baax jële toog di sëriñ Alioune Diop muxaddamatul xidma di ku bëgg sëriñ Tuubaa di murit saadix moom rekk buñ ko joxee nuyoo ñépp a ci biir ndax xam nañu bëggam sëriñ bi xam nañu tam fi mu nekk xam nañu tam li ndaw ñi daje di ko def moo leen ci dooleel ci di leen nàmm fu mu toll ci gën a bëgg sëriñ bi ndax bëgg sëriñ Tuubaa ci la ndam nekk àdduna ci la ndam nekk alaaxira bëgg sëriñ tuubaa mooy aljana ju gaaw ci àdduna avant ngay dem ca aljanay ëllëg kon kuy dolli mahabba ci tuut tànk yépp ci ñu pasteefu ci bëgg ci sëriñ bi ku ko nuyu rek nuyu nga képp ko fi teew ngi nuyu mbooleem daayira yi fi daje yépp ak jëwrin yi di ziyaare mboolem jàngkatu xasaayid yi ci njàng mu neex mi yàlla yàlla sàmm ñépp yàlla yàlla dolli leen kàttan dolli leen wér ci barke Cheikhul Khadim ñu waxoon ma nag ni waxtaan wi day jëm ren ci sëriñ Fallou ndax ren jii la juróomeel bi édition di bis bi ñuy jagleel xasaayid yi mu mel ni daaw bi nu fi dajee lu ngi waxtaane woon jàmbaar yi sëriñ Tuubaa ja sëriñ Muhammadul Mustafa al Karim mi ko njëkk a wuutu ci liggéeyam bi waaye xam ngeen ni Cheikh Muhammadul Fadil mooy ñaareel bi xalifab sëriñ Tuubaa ren ñu jagleel ko bis bi di bis boo xam ni xasaayit yee ko tax a jub waaye dañuy wut ci njabootu sëñ Tuubaa ñuñ ci fàttaliku loolu di solos kon sunuy kàddu tey ñu war koo jëme ci sëñ Fàllu kan mooy Cheikh Mouhamadul Fadilu kenn la ci njabootu sëriñ Touba Xaadima Rasul ñaari wéyjur yu tedd yu mag yu kawe séq ko muy yaakaari jaam ñi sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadima Rasul mooy wéyjuram bu góor wéy juróom bu jigéen di soxna Xawa Buso radiyallahu anha moom sëriñ Mbusoobe sëriñ Mbusoobe nag doy na nga ni sët la ci yenant bi alayhi salaatu wasalaam ki gën ñépp tax yàlla sàkk ñépp mooy maam yi sëriñ Fàllu ñeent fukki maam ak juróom benn moo dox diggante sëñ Fàllu ak rasulullahi sallallahu alayhi wa mu sëtu ci sayduna xasan xasan di doomi fatimata bintu rasul ak sayduna aliyun foofu la sëriñ fàllu bokk ci meen cheikhul xadim di wéy juram mi wuutu yenant bi muy mbàkke ak mbusoobe wéy juram soxna awa buso xam ngeen ni ku ñuy wax sëñ abdu kumbaan mbàkke ñang moo ko yoroon sëñ abdu kumbaan ñang mu nga dëkkoon fu ñuy wax afe ñang moo denc ci soxna xawa buso sunuy nopp am ci doom ju tudd alaaji afe ñang kooku mooy magi sëñ Fallu ñoom ñaar ñu bokk jenn ndey ju leen meññ bi yàlla attee ci atu 1874 sëriñ Abdou Kumbaan ñang tëdd guddi yàlla wan ko ni ko soxna si nga yore di soxna Awa Bousso war naa am doom joo xam ni bu ñëwee ci lislaam képp ku ci jàpp woo turam dina la fajal sa aajo àdduna ak alaaxira war ngaa am doom joo xam ni day nekk bu zamaan nekk xawsu xawsul wara di xettali mbindéef yépp waaye di njiital jamono ni ko doom jooju nag yow doo ko jur yow mi yor soxna si mu daal cay xamee kon ni day bëgg a génn àdduna kiy jël ginnaawam soxna si mooy am doom jooju ba mu xëyee mu waxtaan ak soxna Awa Buso ni ko man de xam naa damay bëgg génn àdduna mu ni ko sang bi lu tax nga wax loolu mu ni ko yàlla lu mu ma teg naa ci bët te nee na yow mii danga war a am doom joo xam ni bu ñëwee dina nekk xutbu zamaan nekk xawsul waraa di xettali mbindéef yépp ku ci woo turam ci jaaxle mu faj ko te nee na doom jooju man duma ko jur te man duma la wàcc mukk ngir gërëm naa sa jikko yépp ngir sa islaam ci laa xame ni kon damay bëgg a génn àdduna ki lay jël ci sama ginnaaw mooy jur kooku ca déwén sa xeexu sàmba Sadio éclaté mooy xeex bi amoon ci wetu kokki te sëriñ Ahmadou Seexu Ba doon ko xeex mag ñi doon ko jàppale cëla sëñ Abdou Kumbaan ñang wuy ji ca la wàcceb liggéey soxna Awa Buso muuru ko ñeenti weer ak fukki fan ni ko islaam tërale bi mu matee sëriñ Busoobe jox ndigal sëriñ Tuubaa sunu yaakaar ndax sëñ Busoobe nijaayi sëriñ Tuubaa la moog wéyjuru Seexul Xaddim ñoo bokk ñaari wéyjur soxna maam Mariyaama Buso maam Jaara Buso moo meññ Seexul Xaddim mook sëriñ Busoobe ñoo bokk lépp sëñ Busoobe nag wax sëriñ bi sa kër goo gii ngay liggéey la yàlla su ma sañoon soxna Awa Buso mii dina la ci wéttali sëriñ bi nangul ko ko ci kaw lu neex yàlla daal di jël soxna Awa Buso mu ñëw fa am sëñ Fàllu am soxna Mariama Kunta Mbàkke jërëjëf mu ñëw ci kër gi am fa Cheikh Mouhamadul Fadilu ak soxna Mariama Kunta Mbàkke ñaar ñooñu la am ak Cheikhul Khadim Serigne Fallou mu ngi gane àdduna le 29 mars 1886 am na ñuy wax huit nag waaye huit wérul boo yàggee gëstu da nga dem ba nangu loolu lépp sëñ Fallou sax waxal na ko boppam nee na bi sëriñ bi dem ci géej gi booba ci juróom-ñeenti at laa toll te ku ne maase na xam ni. Serigne Touba 1895 la dem ci géej su nee juróom-ñeenti at la am kon 1886 ngay xam ne ci la feeñ sëñ Fallou 29 mars 1886 ci la feeñ ci Daaru Salaam Serigne Modou Moustapha ko jiitu jiitoo ko juróom-benn weer di magam Cheikh Mouhamadoul Fadilou mu ngi feeñe Daaru Salaam kon. mu dëppook ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rajab xam ngeen ni mooy guddi gi yenant bi alayhi salaatu wasalaam rañaanee dem ci boroomam jëli ji ibaadaat yi te bi ci gën a rëy di julli alquran misaal na ko bu ngeen déggee wa mi iza hawa maa dalla saahibukum wa maa gawa wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuhaa saar woowu rañaanu yanant bi lay jàngale bu ngeen déggee subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjidi alxaraami ila al masjidi al aqsa allazi baarakna xawlahu li nuriyahu min ayatina innahu wa samiul basir mooy bopp sootul israil ba tey rañaan gi lay jàngale yanant bi def kawtéef bu rëy miracle màkka la jóge ci génn guddi dem baytil maqdis ca Jérusalem yàlla door koo waajal invité ko yéege ko jibril gide ko mu war ci alburaax dem jàkkaarloog boroomam ci génn guddi sëriñ Bamba nee na giñ naa ci sama dund boo jàngee téere bu jox masiyaat sëñ Tuubaa dani giñ naa ci sama dund ci yàpp yaramam ak ruwam la gisa yàlla kon jàkkaarloo moom lu sëñ Tuubaa wax nag toppatootuma waxu kenn man loola rek laa gëm loola laay dogu wax ko sëriñ Tuubaa nee na gis na yàlla direct yàlla invité ko jox ko julli yi juróom jooju guddi moom la yàlla jagleel sëñ fàll mu gane ci àdduna mu dëppoog guddik aljuma jëm ca alxamis jëm ca ajjuma ci ndax timis bu weesoo rek ajjuma lañ koy àttee ci alxamis yoon ci la sëriñ Fàllu feeñ moo tax wax naa ci waxtaan yu bari ni juróom benn yi may bëgg a wax sëriñ Fàllu képp a ko dajale ci islam bépp ba lislaam jeex keneen amu ko amut ñaar ba lislaam jeex sëñ Fàllu rek ngay xool turam fekk ko ci alquranul karim di téereb jullit ñépp di téereb yàlla ba lislaam jeex sëñ Fàllu dong ngay xool bis bi mu ganee àdduna fekk ko ci biir alquran at yi mu dund nga fekk ko ci biir alquran jamono bi mu ganee àdduna nga fekk ko ci biir alquran tur wi mu tudd nga fekk ko ci biir alquran dëkk bi mu dëkk ko ci biir alquran dëkk bi mu ganee àdduna nga fekk ko ci biir alquran kenn mën ta dajale yooyu ku moom turam muy fadlu yàlla moo ni ka zalika fadlullahi yuutihi man yasha wallahu zul fadlil azim turwaa ngoogu leer nañ ñi dégg ngeen sëriñ Moussa Ka ba muy woy doomi sëriñ Tuubaa yi ba ak ci seen Fallu dani allahu zul fadlil azim ku mu jox ngëneel déefi la yéem faadilu mooy fadlul amim turam wa doy na xarnu bi mooy doomi samsun wa qamar mbàkkeeg mbusóobe duñ ko njar moo nàmp ñaari meeni gor mooy Seex Bàmba ci xarnu bi tur wi kon alxuraan feeñal na ko nga xool léegi bis bi mu ganee àdduna yaa ayuha alladina amanu ida nuudiyatu lissalaati min yowmi aljumaa fasaw ila dicrillahi wa zarul baya zalikum xayrun lakum in kuntum yàlla du ko tudde saar ni bu ñu leen wooyee ci julli ji na ngeen bàyyi commerce bi ngeen dem jullil yàlla moo gën ci yéen àdduna ak li ci biiram su fekkoon xam ngeen aljuma jooju ci la sëriñ fàllu ñëw kon alxuraan indi na ko laaj kañ la fi ñëw anniversaire am jàng naa ko léegi subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa allazi barak naa xawlahu ila axiri aaya ci la sëriñ fàllu ñëw nga laaj sëñ fàllu noo tudd mu ni fadlu alxuraan andi na ko kañ nga fi ñëw mu ni jàngal bopp sootul isra yi nga laaj sëñ fàllu ban bis nga fi ñëw mu ni jàngal sootul jumaa nga laaj sëriñ fàllu fan nga ganee àdduna mu ni jàngal sootu yunus wallahu yad'u ila daari salaam wa yahdi man yasha ila siraatin mustaqimin aaya 25 yunus nga ni sëriñ fàllu ban dëkk nga dëkk mu ni jàngal sootu raadi alquran inna allazina amanu wa amilu saaliat tuuba lahum wa usnul maab tuuba ngoog benn yoon nga koy fekk ci alxuraan sootu Raad fa la sëñ fàllu dëkk nga ni sëriñ fàllu maa ngi lay laaj ba tey ñaata at nga dund mu ni alxuraan jëpp a ngi fanaan ci suratu yaasin mooy xol bi nga xool suratu yaasin 82 aaya la nga ni sëñ fàllu ñaata at nga dund mu ni 82 ans 1886 1968 86 ba 1914 ans la 14 plus 68 82 82 ans la kon léppam dafa dëppook alxuraan keroog bi mu feeñee nag dafa fekk Sëriñ Tuubaa ci muy dugg xalwa mu woolu maamam maam yi sëñ Fall ju ñuy wax Sëriñ Mbusoobe di nijaayi Sëriñ Tuubaa woolu Maam Jaara borom saa magi mag magi Sëriñ Tuubaa ni leen damay damay séentu gan ndax sëñ Tuubaa koo ko tëkkal def nga bàkkaar bu rëy ci yàlla war ngaa tiit kiy séentu ganam di ko lijjanti di xam heure bi muy ñëw di ko batale kooku niruwut ak jaam ñi dara sëñ Tuubaa ni damay séentu gan gan gi may séentu nag dina ma indil xeetu ngëneel yépp bu ñëwee gan googu war naa feeñ ci guddi gi yanant bi rañaa noonu bu feeñee damay fekk ci xalwa buñ koy tànnal tur damay fekk ci xalwa waaye yéen ñaar laa délégué na ngeen ma tànnal tur wi tur wi nangeen ko tànni bu ngeen koy tànn nag ne leen Muhammad képp yem ci lay war a topp ci tur bi yàlla nee na ma jundul laa il xaaliboon muy malaaka yi not lépp ñoom lay yebal ñooy indi li topp ci turu sama doom jooju su yoor yoor ji ngeen koy tànnali tur jotee na ngeen ni Muhammad te teen xool ci jaww ji li ciy topp yàlla dina yebal ay ndawam ñu indi leen soxna Awa Bousso nee na bi ñu tëralee sëñ Fàllu ci lal war a tànn turam teg na bëtam ci sëñ Fàllu mu ni ñokket toog féete penk sàbbaal ñetti yoon tëddal ñoom biñ nee Muhammad ci la ñu seen alfaadilu ñu ne Muhammadul Faadila nga leen noonu lañ tudde sëñ Fàllu li ci gën a yéeme mooy gan gu ñëw dañ koy defal toqantal toqantalam nangu koo jëfandikoo da doon ba ca timis la ko nangoo jëfandikoo sëriñ Tuubaa biñ ko ko gaaralee dani dafa ñëwaale koor gi dafa wooral yàlla ci bis boo kooku mooy sëñ Fall bi mu tollee nag ci war a dal jàng alquran sëriñ Tuubaa ko dalalal boppam ki raw ñëpp dalale ko ci péncum sëriñ son yi bu Mbàkke fa la ko sëñ Fallou dalale fa la ko sëñ Touba dalale moo sëñ Modou Moustapha moo ko dalal ci alquran jéppal ko kan sëriñ Daam Abdourahman Lo mi ngeen xam ni yoonu murit ku ci dégg alquran jar nga ci moom sëñ Touba gërëm na ko lool ñeenti weer la ko sëñ Bamba mage ci zahir dañ may dégg ci yow rek te ki wax loolu raw ñëpp ndax toog na tuubaa toog na tuubaa fukki doomi sëriñ tuubaa ak ñaar wër ko billaahi fukki doomi sëriñ tuubaa ak ñaar mu ne ñokket ni maay sëriñ tuubaa ku ma gis gis nga sëriñ tuubaa ku ma noppi gis koo gis doomi sëriñ tuubaa la man nii maay sëriñ tuubaa sëriñ Saliou muul ni ko ñépp ko nangu jël otoom jox ko ni ko dañ koy dëggal yaay sëriñ tuubaa sëriñ tuubaa ma ni sëriñ Fàll moo waxoon loolu xool leen li mu wax njureel gi li muy rëy rëy jënd naa ko taalibe taalibe googu boo ma fayee njëg li delloo naa la ko hëddiya bëgguma lenn lu dul ak taalibe ñu may dégg ci yow na ñu ko nag dimbali nangul na ko ngir sag màgg sëñ Fallou rek yii xew ñu koy bañ yii ñuy xewal ci senegaal te doo xam lu tax nag saytaane jàpp leen boo dee sëriñ Touba kenn la dañuy kenn ñu lay woo ñu la jéem a teg ci raay ak nan la déedéet baatu kenn nag yàlla da ñoo gën a ragal yàlla sëñ Tuubaa kenn la man da ci kuréel boobu laa bokk kuréelu kenn sëñ Tuubaa loolu laal gëm de da kenn mënta fexe ba ma génn ci loolu waaw kennal googu sëñ Fàllu def na ki ñuy waxtaane te moo raw ñëpp yawmal jumaa bisu ajjuma sëñ Fàllu toog ci biir jumaa ji di aalimu kulli fanni di aarif mag jeexal téere yëpp di imaamu ñëpp àjjuma jot mu war a xutba toog ci minbar bi ni tey ngeen baal ma xutba bu gàtt lay xutba ñaari baat insha allah ko bu gàtt lay ñaari baat lay doon jullit ñépp ni teg mu ni assalaamu aleykum ki ñéppi wër kenn amu ko waaye ñun doo nga ko am mooy sëñ tuubaa mii nan ko jàpp ni wasalaam lii kennal ku ko mas a kennale nii Sëñ Tuuba yow mal jom am toog ci minbar bi ni xutba bi day gàtt ñaari baat ki ñépp yi wër te kenn mënu koo gis ñun ñi ñoo ko gis am ko mooy kii Sëñ Tuuba nañ ko jàpp waaye wasalaam kon ku kennaloon Sëriñ Tuuba na xasidaam koo xam ni am mooy man ko nee leen jooyal Sëñ Tuuba ngir sopp ko faratal loolu bindum Sëñ Fàllu ku gëm sëñ Tuubaa ba jeex tàkk waaye mu dimbali murit yi nag moom sëñ Fall xam nga lu ñu dimbalee dafa am lu ñu mënul woon ñàkk te sëñ Falloo ñu ko defaral am nga lu ñu mënul ñàkk te sëñ ñu ko defaral ñun xam ngeen mooy lan dem aljana mënuñu koo ñàkk ñun dem aljana mënuñu koo sëñ Falloo ñu ko fàggul ci sëñ Tuubaa daa bindal sëriñ Tuubaa kaamil yu kenn mënta mu toll waaye bi mu àggee ci ñaar fukkeel bi kaamilam ak juróom-ñett ba daa jël kaamil bi yut ko Seexul Xadiim sëriñ bi téye kaamil bi muun ni ko sa kaamil bee gën a rafet sëñ Fàllu ni ko ci sa barke rek lañ ko bindee tàllal loxoom sëñ bi ñaanal ko muy dem sëñ Tuubaa ni ko faadilu mu ni Mbàkke mu ni ko am naa yóbbante ci yow sëñ Fallou ne ko yóbbante kan mu ni ko yàlla sa borom moo yóbbante yàlla de sori bu sëñ Tuubaa moom ah waaw loolu la ko wax di yàlla sa borom moo yóbbante ci yow sëñ Fallou ni ko lu yàlla wax sëñ Tuubaa ni ko yàlla nee dafa bëgg nga defal ko kem kaamil bi nga ma defal bu ni mel sëñ Fallou ni ko nee ko moom kat mayewut dara day jaayee kon bu soxlaa sama kaamil damay fay wax na sëriñ Tuubaa muñ ni ko sunu boroom nee na lu muy fay mu ni ko na bàyyi ba ma àggale sama kaamil nga wan ko ba mu jaral ko mu door a fay sëñ Tuubaa ni ko sunu boroom nee na nga tàmbali sëñ Fallu tëju di bind kaamil bi jël yitteem yépp def ci ba kaamil bi àgg mu gàdd ko ñëw ci sëriñ Tuubaa jox ko kaamil bi ni ko wanal yàlla ndax jaral na ko sëriñ Tuubaa di niir kaamil ba mu yàgg ba muñ ni ko yàlla nee na kaamil bi neex na ko lool lu muy fay sëñ Fàll ni ko lenn rek laa ciy fay ko képp ku la bëgg te muy dëgg ci xolam bu ëllëgee na mucc ci sawara loolu laay fay ko ci kaamil ñun sëñ Tuubaa la bëgg moo nu teree nelaw moom la ñu bëgg bëggul keneen sëñ Tuubaa waaw kon ki nu fàggul ci sëñ Tuubaa ku ko bëgg bu ëllëgee nga mucc ci sawara kenn mënu koo fay sëñ Tuubaa ko li muy jafe-jafe sunu boroom nee na may na la ko ci kaamil bii nga ko bind kon xuluubu jumlatil lazina aflahu li yatawajjahat wa rabbil muslihu loolu da koy dëggal ah? loolu sëñ Fall war nañ ko cee sant ba bañuy faat xam nga bu ci topp jumaa ji gën a rëy ci jumaa yi gën cee taaru jaaxal ñépp ginnaaw ma madinatul munawwara benn la ci ci lislaam yonent bi moom boo fa jógee bu tuubaa bii rek ngay gisaat bu ni mel bii nag sëñ tuubaa ko ñaan ba yàlla may ko mu bind banaa liyal baaqi binaa an raaqiya li xayri hëdmin lil jinaani baaqiya yàlla dina ma tabaxal jumaa joo xam ne du màbbu du rës day taxaw ni jot jàkkaarloo asamaan di coow ba biir aljanna la sëñ Tuubaa wax bi ko sëñ bi santaane jafe waaye kana ko àggaleel sëriñ Tuubaa ñépp a ko xam sëñ Fall 1963 le 7 juin la ko sëñ Fallu àggale yëkkati sooroor ba gën a kawe ca kaw génne kayitu junni ni ko xam ku muy tudde sooroor bu mag bi maa la ci neexal junni bi am ngi ne ko Seydina Aboubacar mu ne yayoo na ko lool waaye sama xel jëmul ci moom am ñu ni Seydina Omar mu ni yayoo ko de waaye sama xel génnoon na ci moom nit ñiy wax ci islaam yi ñu xalaat ñépp ngir bërëbu jullikaay la kenn xalaatul maam Cheikh Rafal ndax bërëbu bërëbu jullikaay la ñuy xalaat bay bëgg a jeexal mu daal di muuñ ni junni daa jafe waaye sama junni bi mott ci biir jibóob waaye bu ngeen ko jël sama bàyyi Cheikh Ibrahima du ma ko fàtte mukk keroog bu ma feeñee daf maa tiim ca Daaru Salaam ni bu ma ko fàtte waxam ko ja fàttewuma ko ba tey du ko fàtte mukk làmp faala ndox gën a gudd ki sooroor yi kuy duggati mu seere la kuy génn mu seere la sama baay Cheikh àggale jumaay Serigne Bamba ji 7 juin 1963 yëkkati ko mu tiim jumaay yëpp kooku sëñ Fallou am nga ñaar xam nga bu ko ñetteel murid yëpp war ko cee santaan sëriñ Tuubaa dafa nësëroon dem Makka Tuubaa ko xam boppam sama itte mooy dem Makka nisër naa ko waaye dama am gàllankoor gu ma dab taxoon na ko sëñ Masamba Diop Saam ni ko dañuy ànd mu indi yóbbal mu ne ko ko bàyyi daa am gàllankoor gu ma dab waxoon na ko sëñ Mbàkke Buso ba muy calculer xaar kana ajali sëriñ Tuubaa sëñ Fall le 7 mars 1928 sama xel jàpp la ma xam ni islam rek la tax a jub ma ni naa la seet si te yàlla tax sëñ Fallou ni ko neel mott toog nee xaar ma wax nga dëgg borom baraag bi lu mu indi rek ñu ko xaar ma fe mu toog tuuti benn oto gaar mbooloo wàcce ci jox sëñ Fallou keesu xaalis góor gi di toog ba mu yàgg beneen oto nuyoo jox sëñ Fallou keesu xaalis bi ñu julli tisbaar ñetteel bi oto ñoo joxaat ko keesu xaalis yu ñetti kees yu ci bis bi sëñ Fall na ni ana borom ngénte la mu ni maa ngi nii mu ne ko neel diis ba nii ñu waxtaan mu raam ba jege sëñ Fall sëñ Fall ni ko indil kees ku njëkk góor gi nga xoolal ma ñaat a ci nekk mu dindi kees gi di wàññi di wàññi ba mu yàgg mu daal di tiit ndax booba jamono juróomi dërëm xaalis mu ni sëñ Fall di wax dëgg yàlla su ma juumul ñetti million laa ci fekk sëñ Fallou ni ko xanaa mën naa defar laax ak ceeb ngir sa génte lool mu ne ko ñetti million ci laax ak ceeb waaw jëlal du as yaakaaru kenn ko naa cee tabax jàkka mu ne ko waaye jëlal waay yaa ma diis sa aajo te yàlla tax ma jox la te yàlla tax du as yaakaaru kenn ko as kenn ko ma yaakaar góor gi daal di bëgg a jug mu ne ko des na jox ma geneen kees gi mu jël kees gi indi sëñ Fall ni ko wàññal ñaataa ci ne mu wàññi fekk ci un million cinq cent mille sëñ ni ko boo demee xanaa loolu dina mën a xottil doom ji mbootu mu ni ko mbootu un million cinq cent ëpp na di mbàkke mu ne ko waaw waaw duma as yaakaaru ko ma yaakaar góor gi tàmbalee jooy mu ne ko bul gaaw ko des na jox ma geneen kees mu jël ñetteel bi kees bi yëg ko sëñ Fallou di ko wàññal ñaataa ci ne mu wàññi di ko mbàkkee téeméeri junne ci nekk cinq cent mille sëñ Fallou ko boo delloo ba ngénte ba nopp sa xarit bu tudd Matar sant Gajaga wax la awma lu ma lekk ne ko na ci ñaw lu ay yére maa ko jox addiyee sëriñ Touba maay borom Touba Daaru Salaam dégg naa ko mu daal daanu jël jël doom ja tudde ko sëñ Fallou amaat doom tudde sëñ Fallou far jébbalu tudde waat ko sëñ Fallou bi mu amee ñetteel bi doom tudde ko ko sëñ Fallou woolu ko ba mu ñëw Aliya mu ne ko waaye tuddeel keneen nag ndax mënuma doom bi nekk ma koy xottil mboot waaye man naa ku ma tudde doom ma dox sa diggante ak sama kon borom guddi gi fajkatu aajo wóoru wóoru sëñ Tuubaa la ñuy fàttal bii xasidaa ko tax a jóg te bu fàtte ni seen fàllu ku bëggoon ba faatiwul bis bi la sama xarit boobu bu bëggoon lool jële naa ci ñaari doomam di ay kilifa ngi ni ma lu mu daan jàngale bu dégg bëccëg ma faatiwul bis bëggoon ko lool mbiram it da ko ciy gis mu feeñ lool mbiru mbiru sëñ fàllu xam ngeen yaa faadila fadalahul xalaaqu yaa man bihi faaraqa al imlaaq doon te sëriñ Tuubaa yenant bi lay waxal waaye fa sëñ Fàllu we na lool ndax rajab yi rajab ndax rajab la sëñ Fàllu ñëw yow ma rajab la sëñ Tuubaa tënk noonu waaye lépp dafa nuru sëñ Fàllu loolu bëri na ci bayti sëñ Tuubaa yi doon te bi lay waxal day nuru kenn kenn ci ak njabootam comme ak saaliwu la si yu kamilul amal jooju ah, ah, am na ku laaj sëñ saaliwu ne ko ndax yow la ci sëñ jublu mu ne ko ah yonent bi la ci jublu woon waaye yàlla ma ko rafaatale day nuroog moom lool kon bëy boobu suñ fàlluwe na lool xasidaam la woon daana wax ci xasida ak wasilatu wasilatu rubboo ku sa aajo fajuwul ba noppi doo ko am sax am bi ko amee rek ngaa xam ne sa aajo faju loolu waxi sëñ Fall la wasiyatul ko xasiida rabbi bi maa yasrahu sëñ Fall moo ni tawféexu sëñ Tuubaa rekk a tax taalibe yi jote ci waaye ki toogal sëñ Tuubaa ci xilaafaam képp ko war a doyoon ko jàng moo ko foog woon ñetti yoon tax loolu juróom-ñeenti bayit la xasida gi 3 fois 9 27 27 secret la ci ñu xam daaw mooy 9 27 secret bu rëy 27 mën naa ci def conférence 27 donc kon ñetti yoon la koy jàng ci juróom-ñeenti bayit mu jàpp 27 secret rabbi baasirul azana xat fajaa sëñ sëñ Saalim daana ko jàng lu bari kon borom bis bii di borom guddi gi sëñ Fallou kenn mënu koo fay lëggéeyal na sëriñ Tuubaa lëggéeyal na mbokk gi lëggéeyal na lislaam lëggéeyal na taalibe yépp jariñ leen ba tey nag fii jamono toll am na ñu nekkul sax murid te sëñ Fallou rek lañuy ñuy am na ñu ma ci xam nekk guñu sax murid waaye ci seen néeg bu nu jàqee sëñ Fallou la ñuy woo daaw jéeg xaw ma daawaati jéeg spécial Kazu Rajab bi ma def ci TFM am na ku ma woo ni ma taalibe seex laa ci télé bi may dégg ni ma wallaahi al azim demoon naa ba médecin yëpp ne mënatoo am doom mu ne waaye damaa dogu ci sëñ Fallou donte duma murit dégg yi may dégg ci moom dinaa am doom ñu tudde ko sëñ Fallou ni ma sëñ Ablaay yàlla dogal na ko ci kasu rajab gi la ma dale bis bi ñu koy màggale laa am doom ji ko ni ma sama jëkkër taalibe seex la dañ ma di ñaan ko mu ni ma amul benn weer dañ ko koy tuddee xam naa ci preuve yi ba su bis baa forman xam ne duma moroom may sëñ Fall billahi bis bi jot ñu dem ba quatrième round dañ doon mëne euh, mu ni woon de koy bëgg a fàtte indi forman bi mu koy wax ak bi forman di daanu jël dem kaw benn la sëñ Modou bu so li mu def fii ñu fekke ko fii kooku ku dul sëñ Fàllu moom kon yëf yaa ngi ci wóolu sëñ Tuubaa ak liggéey sëñ Móodu mës na téye dara toog na Amérique Amérique koo xam ni xam naa ko man xam naa waaj mu nga Amérique ba léegi daa fekk ci jataay bi sëñ Móodu bu sa jeg mu toog waa ji raam ni ko Mbàkke yaa ngi tàggoo pour ñibbi talaata te kat yaa ngi dem waaye problème am na sa ginnaaw sëñ Móodu ni ko ban problème mu ne ko ñun daayira lañ fi yor ñun ñëpp yaakaaruñ ku dul yow di liggéey liggéeyal ngir sëñ Fall am benn huissier américain bu mag clamé clamé na ma ba neen dañuy génn samay bagage weer ma génn mi ci moom ma dëkkoon mag sama njaboot te ma jox délai nee na talaata bii di ñëw ci la may génne te talaata ngay ñibbi Mbàkke sëñ Modou daal sama billet bi ma jëndoon nañ ko reculer dolli ci ñaari fan ma taxawu ko ba ba mbiram jàll ba xam kenn koy génne tamay sëñ Fallou ne fi dañoo yokk billet bi ba vendredi ba mu ne ko demal toog déglu ma ba xam kenn dina la génn lundi la waa ji taw si ñëw ni ko ki ma waroon a génne far nañ koo génne tëj ko tëj ko kaso kooku xam naa ko ñu amee dem na ba ñu koy laaj loo yor lu nekk mu ni sëñ Fallou rek laa yor dama koo gën kon sëriñ Fallou beneen affaire la kenn du sëñ Fall réew mi a xam ni kenn du sëñ Fall daan na wax ni man mii maay ceeb man sëñ Fall maay ceeb ku ma bañ rek ceeb la bañ te kenn bañul ceeb ñëpp ma bëgg maay ceeb su mi dee ñëpp ma xaar maay ceeb bi mu ganee àdduna sëñ maam Cheikh Rafal moo jëkk a wax borom gis-gis bu rëy dañu sëñ Touba tey am na gan goo xam ni jamono di ñëw ku ci sëyi jiwul di ci njaaloo ji daal di doom ndax xam ngeen luy sëyi ñu ni déedéet faal mu ni sëyi ci moom mooy dem jébbalu ci moom ndax xam ngeen luy njaaloo ñu ni déedéet mu ni sëriñ boo mën a am jamono ngi ñëw nga tiit tëb sab sëriñ di tudd sëñ Fall ñépp lay dal foo mën a jébbalu yenn saa yi nga jaaxle rek woo sëñ Fall kon yàlla nu ko yàlla fayal dundam daal lépp jox na ko sëriñ Touba lépp jariñe na ko lépp yëkkati na ci maam Cheikh Ibrahima Fall lépp faj na ciy aajo ba tey biñ ko noppee gis aajo bu jafe boo woowee turam yàlla fajal la kon kenn mënta fay sëñ Fall kon def ngeen lu rafet ci bisub xasida bii ngeen tudde Cheikh Mouhamadoul di ñaanal xalifaam sëñ Abol Baraka mu yàgg fi baax la ku ma bëgg ñaare fu ma gis sama nopp lay jàpp rek xëcc borom waxtaan wu neex na nga def sëñ Abol Baraka maa bëgg lool bu ah, mun ma yow dañoo waroon sax ànd Canada ma ne ko waaw maa ngi xaar sa ndigal rek Mbàkke ku baax la euh, naka noonu di siyaare itam xalifa sëñ Modou Boussa Dieng sëñ jiili sama soppe la loolu moom ñoom danoo oyof waa këram danoo laabir te oyof doomi sëñ Fall yàlla yàlla yàggal leen maa ngi sant bu baax wallaay jërëjëf ko de wallaay di ziyaara bu baax sama jigéen bii ci koñ bi di soxna may mën a jóg nit ku baax waaw ku baax ku xër ci sëñ Tuubaa yàlla xam na ko su ma ñëwee sama kër léegi may ñëw ci jàng yi falaa nekk xeetu bernde bu ne ma koy def avant ñu ñëw te sëñ Tuubaa rek ko war a maa ngi leen koy kalaame ngeen ñaanal ko yàlla aar ko moom njabootam te barkelal leen ci barkeb maam Cheikh Anta nam ko yombe woon bu yombe ko ni lool ci barkeb xasaayid yi lu ngi sant bu baax sëñ Alioune Diop di ko ñaanalaat tawféex ju sëñ Touba ku bëgg sëriñ Touba la jëwrin la boo xam ne ku ko am ci jëwrin war ngaa góorgóorlu ndax sëñ Touba rek lay dund xam nañ ko ci moom sëñ Touba rek lay dund kon yàlla yàlla yàggal taxawaayam te dolli ko wér defal ko ngërëmu sëñ bi mu jàppandi ci moom biir ak biti aar ko aar njabootam di nuyu bu baax waa télévision Touba Vision seen taxawaay réew mépp a nga koy rafetlu bitim réew di njiital sëñ xaadim Seck jaar ci sëñ Modou Faye ak équipe bi ñu àndal yépp yàlla na yàlla fay leen yiiw lii ngeen di def yéen a ci liggéey bu kawe yéen a ngi tasaare liggéeyu sëñ Touba bi ndax taalibe yaa ngi fépp nag te dañuy topp émission yi di topp jataay yi di topp conférence ci la ñuy wéttalikoo fa ñu nekk ñiyee nga Amérique ñiyee nga Europe ñiyee nga Afrique ñiyee nga Asie ñiyee nga Océanie te ci lii lañ koy toppee kon yéen ñi tasaare liggéeyu sëriñ bi yàlla dolli seen yiiw dolli seen tawféex dolli seen sutura ci barke sëñ Tuuba mu ngi leen di sant bu baax di santaat bu baax waa daayira bi ah, di sant suñu soppe bi bu baax a baax di ko jox nuyoo mu joxal nu ko mbokk yëpp ngeen baal nu àq kon ñu taxawandi foofu te ngeen jéggal nu baat bi dafa xaw a soj damay forcé wax rek waaw ah, ndax damaa jógee Bakel 31 euh, décembre ñu nga woon Bakel te ndeke Bakel daal bokkul ci dëkk yi nekke waaw ah, Bakel daal moom aka sori aller retour bi ay 1800 kilomètres waaw yàlla xam na ko bi ñu àggee wax sax ñu doon génn ndax solo fa la ñu jóge fan yi xaw a tooy lool baat beeg yëpp daal di téyewu démb ñu fanaan ci programme Pikine doon fa def conférence ci maam Cheikh Ibrahima Fall loolu yëpp moo ñu téye waaw waaye ñu ngi feet di kóllëre di leen bëgg yàlla na ngeen ko yàgg a woote mu yàgg leen see fekk da ngeen dañu see ngërëm sëñ Touba maa ngi ziar Baye Fall baax nii maam Cheikh Rafal rek moo ko neex ci biir Mali bàyyi faal yi fii mu leen taxaw luñ fiy liggéey mu taxaw sawar lool di ko yóbbante nuyoo ci sunu wéeju ajaan génne kase di ñaan mu yàgg bu tewee sant nañu ñëpp ak jàngkat yaa maalika mulki yaa man